salaamaaleykum mbokki Sunugal sénégal encore une fois di leen baax di leen ne ni ko bëggee noonu rek lañ koy xel di defee yéen tey nag nuñ koy faral di defee ñëw nañ fi nga xamante ni bii moom moo di Thiès fekk fi koo xamante ni bii xam-xamam dafa màcc ba tax ñu ñëw ko koo xamante ni aussi day dox ci li nga xamante moom moo di social koo xamante ni am na ay projet yoo xamante ni tey war na koo tàllal euh, ñi nga xamante ni bii tey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñoom ñoo nekk Sénégal pour ñu mën cee toog loxo pour affaire bi gën a jëm kanam mi ngi nii euh, tudd sëñ Ablaye ñu daal di fas yéene daal koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu daal dugg ak moom ci waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax. waaw ñu ngi lay dolli nuyu ñu ngi lay delloo nuyu bi di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Thiès di nuyu waa àdduna bi di rafetlu waayu seen teewaay bi ngeen euh, déplacé ñëw seet si ma Thiès di ko rafetlu bu baax wax dëgg yàlla. Mhm. solo euh, ñun tamit ñi ngi jégalu si euh, si euh, dérangement bi ndax ku ne xam na ne jot amul waaye tamit lépp rek ci defar bu mu rafet moom moo ko tax a jóg sëñ bi tey dañuy duggee ci li nga xam ne moom mooy wàllum ñaan sëñ bi bëggoon nañoo nga waxtaan nañu tuuti ci ñaan avant ñuy dugg ci yeneen. waaw moom comme lu mu la ko waxee ñaan moom ku nekk ak li nga xam ni moom la la di yàlla di dénk moom la la di yàlla may. te wax dëgg yàlla am na loo xam ne moom yor naa ko si waaw xam nga nit sax du yor xam-xam dëgg dëgg yor xam-xam du toog di wax yor naa lii yor naa yi noo di déedéet nit ñi si boppam ñooy dem di ko wax kii yor na lii yor na lii wante moo tax moo la ñu sunu mbir moom fekkee yàlla boole na ba képp koo xam ne déplacé nga nga nga ñëw si kàttanu yàlla incha allah rabbi sa aajo dina faju te comme lu ma ko waxoon bu njëkk ba rek moom laay waxaat dañ lay ñaanal ba nga gis nga doog a joxe li nga joxe te gëm naa ni depuis boobu ba léegi maa ngi koy def te maa ngi si am ay résultats yu leer te ñu ma si teral lu nekk maa ngi ko si am wax dëgg yàlla. Mhm. bëggoon na ñoo xam tey xam-xam parce que tey nit euh, bu duggee ci wàllum ñaan am na lu ko ci dugal donn la wala dañ la koo sol wala nga koo jàng. mun naa wax lii mun naa wax donn la mun naa wax euh, dañ ma koo sol parce ñaar yëpp parce sama maam. moom it yàlla da koo mayoon xam-xam bi nga xam ne moo jur sama papa waan sama papa heureusement affaire bi ñëw si man ñëw si moom si man la ñëw te sama maam boobu tolloon na ay jamono yoo xam ne euh, ñu ngi mooy koy wax moom it da doon toll réew ak réew di wax a ah, dëkk ba di am na lu fa xew te bu waxee loolu bu ñu demee ba foofu da fekk loolu moo am. te gëm naa ne kon loolu xam-xam la te man it man yàlla may na ma lool parce que tolloon naa ay jamono maa xam ne manit euh, si ndéegi ñax bi bi nga xam ne moom laa nekkoon ma nekk du fi dund lu metti nekk loo xam ne awma lu ma lekk awma duñu am lu ñu lekk duñu am lu naan nekkoon si ay jaf-jafe nekkoon si ay yu metti metti te jamono yooyu ba léegi maa ngi si sant yàlla bu baax wante jamono yooyu dama doon toog tàllal parce que dooma na ba métti jàpp ba set julli ay rakka ñaan yàlla sunu borom yi nga xam ne mooy tegu natt na ma ko yàlla teggil ma ni fekkee alal moo tax nit ñi respecté la fonk la na ma ko yàlla may fekkee xam-xam encore na ma si yàlla may te yàlla na ma yàlla may xam-xam boo xam ne ni képp koo xam ne ñaan naa si na sa aaju faju te gëm naa ne loolu yàlla defal na ma ko te mooy boobu dama ñaan ay ay guddi ma jëkk jëkki wallahi azim ngelaw ngelaw bu sedd guy ñëw si man ngelaw bu sedd guy ñëw si man après mi ngelaw bu tàng jër ñëw si man ma am ni am na loo xam ne yàlla moo koy def si man te ñoom yëpp boobu ñëpp na nga tëdd parce que ay 3 heures 4 heures matin 3 heures matin ñëpp da tëdd côté 2 heures 3 heures daal côté yooyu daal ñëpp tëdd am loo xam ne lu ma sant lu ñëw si man ma xam ni incha allah rabbi am na loo xam ne mun naa wax ñaan ñaan nangu na te depuis boobu léegi parce que depuis boobu léegi képp koo xam ne damay jàkkaarloo ay rideau di la wax loo xam ne loolu day am lu mu la seetal day am si kàttanu yàlla parce que yow loolu yàlla may na ma ko te sama maam Mout amoon na loolu te sama maam jamono sengoor xam nga jamono sengoor ba léegi dafa yàgg jamono Senghor yooyu oto jafe na woon dañ doon Dakar fu nekk nara fu nekk fu sore ñuy fekk si sama maam da ko doon rang ba mu fees teel ma sama maam moom yàlla nettali laa si am wante yàlla def na fekkewuma ko sama papa moo koy nettali te loolu lu lu lu am la. que daan def comme li sa maam daan def yow nga sama papa defu ko parce que affaire bi ñëw si moom xëy na man la ko yàlla jox jox te depuis boobal tey man bu ma nekkee daara nag. ba mu nekkee daara jugee ma am fu ma yawaane woon wante suñ daara ak ville bi côté Louga la dafa sorante léegi may jugee foofu ay deux heures de matin mu mut xaw ma ay lii fekk parce que damaa tëddoon foofu rek far départ nelaw ma jóg fa ay guddi di waaxu di waaxu di waaxu di waaxu di waaxu ba diggante armeer yi ak yoon bi am loo xam ne mel ni lu mel ni jinne loolu moom jinne la bu ma bu ma bu ma bu ma tara di transféré ci tali bi di jëm si côté armère yi ma jikki-jikki taxaw fekk man kese maa ànd sama karo bopp bi taxaw ma jikki taxaw rek séentu rek xool moo gis affaire bi di di cëpp di cëpp di cëpp di cëpp di jëpp di jëpp di dox ba mu dugg si biir armère yi parce que jour bi encore noonu la ma def karo ngelaw bu tàng ngelaw bu tàng jër moo ñëkk ñëw ak bu sedd ñëw mu affaire bi romb ma xool fekk bu ma xooloo tànki danoo sutante ngir affaire bi. tànk waaw tànki danoo sutante mu ngi arrière wante moom euh, ni muy ni muy doxee si gannaaw moom lay doxee. de arrière day doxee wante fekk mu ngi lay xool mu ngi jàkkaarloo ma ma koy xool ma koy xool léegi après si jamono yooyu am naa fit nag parce que tiit ma ragul ma. waa gis naa moom gis naa ko ba mu romb ma ba mu dugg si biir armée te bi mu dugg armée jaawul si bunt bi dafa tëb miir bi <coughs> maa ngi jégalu si secret boobu yaa ngi dégg bu mu dugg biir armée ma taxaw du ko xool du ko xool di ko xool wante parce que wante dafa mel ni dafa am loo xam ne ngelaw dafa am ngelaw bu jóge si affaire bi dugg si man ngelaw boobu nag ba léegi day day nekk si man waa bu heure bu bu ma sentiree dala wala amee lu am lu ay xew rek ngelaw ba mu ñëwee rek damay gis image yëpp damay gis ay image di seet di gis loolu la ma defoon jamono bu mu nekkee daara jamono yooyu après ma ñëw wax ko sëriñ bi wax ko ko après mu commencé nag encore may jëkk jëkk di gis ay bind axuraan yoo xam ne dañ koy bind si suuf di ko bind si kaw ma wax ko sëriñ bi affaire bi jaaxal ma maa koy won sëriñ bi sëriñ bi gisu ko man maa ngi koy gis affaire bi jaaxal ma sëriñ bi wax ma noppi di nga am loo dooni ëllëg te loolu yàgg na bu maa ngi yor daara pot daara di yawaan te loolu gëm naa ni loolu feeñ feeñ na ma tey parce que dëgg yàlla jamono nii yàlla may na ma loo xam ne koo xam ne comme ku yorul dara ma ñaanal la ba yàlla def nga nekk mi multimilliardaire ko gëm naa loolu yàlla moo koy def deuxième bi mooy képp koo xam ni ñëw nga si man ma xool sa bunt wër si mu dëppoo juróom-ñeent bu ma xam ne yow mi di am parce que du ñëpp ñooy am alal yàlla bind na te yàmbiluwul wante yàlla damay xamal ñi kii war na am kii war na am kii war na fekkee bokk nga si ba ma xool ba xam ne lii mu am am loo xam ne parce que nit dee am wërsëg nit gis nga ñu sëriñ yi du la jox wërsëg yàlla day fekk jox na la wërsëg ba pare waan dafa am ay loxo yu mu koy jaarale ba loolu ubbeeku parce que ku nekk am na wërsëg waan sa wërsëg dafa am ay ay ay ay ay ay ay lii am na ñoo xam ne sa wërsëg day tëju du mën a ubbeeku wala am na wërsëg parce que dana wax xam nga nit ki moom bu nekkee sa àdduna balaa ngaa dee moom incha allah rabbi di nga jot sa wërsëg wante wërsëg boobu dafa am foo xamee yàlla mën na la fa jaarale foofu sa buntu wërsëg ubbeeku parce que nit ku nekk am na loo xam ne xëy na yàlla bu la ko may def ko sa buntu wërsëg ubbeeku parce que am na ñoo xam ne dañuy def benn affaire rek seen buntu wërsëg ubbeeku fekk yàlla moo ko jaale fu si ay ay ay doomu aadama mu ni mel ni man wala keneen parce que ku nekk ñaan am na xëy na naxaate bi am na naxaate bi am na ñuy naxaate am na waaye ñaan si dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ko mën naan dëgg dëgg am na parce que bu amu woon du ñu si liggéey Muhammad Rasulullahi ba mu jàng di ba ba ñu jàng falaxe naas fala yooyu di di liggéey di toj kon loolu am na parce que mu ngi si Alxuraan waaw kon moo tax ma wax la loolu depuis boobu léegi mu fekkoon ma si ñàkk nekk si tumaranke ñu nekk si tumaranke ñu dem bay sonn parce que demoon na ba instant kër aw ko tey tey maa maa ngi sant la bu baax kër gi ñaata nit ñoo ma koy defaral am na kër bii bii rek li ñu si def ëpp na 200 millions ak yeneen kër yi yi ma am almadi ak beneen euh, kër yu ma am yooyu yëpp ay nit yu ak oto yi nga xam ne dañ ma ko jox yu toll ay 100 millions 100 et quelque xam dañ ma ay 60 millions 100 millions te dama lay ñaal bañ loolu yàlla moo koy def parce que yàlla mooy dogal nit ku nekk ak la yàlla dogal si yow man nag li may yor lii tiituruma si tiituruma si wante dama siy sant yàlla bu baax li ma seen sant yàlla bu baax moo waral may jël jumaa di ko tabax école du ko tabax daara du ko tabax loolu lépp ay ak hôpital di si jaamu yàlla di si dellu njukkal yàlla suñu borom bi nga xam ne dafa ma teg mu fekkoon lu metti mu dem ba tey mu defal ma tey teraanga. avant ñuy ñëw ci loolu damay ñëw ci euh, dégg naa ci ay rumeur ñu ne dafa am benn taximan boo xam ne dafa mës a ñëw euh, bi mu ñëwee nga ñaanal ko ba fi mu toll nii léegi macha allah am na alal lu ci loolu moom gars yi moo ñoo koy wax am na wan xam nga man du ma toog. di wax ñaana naa taxman déedéet man dañ may koy waxal loolu am na xam nga taxman am na ñoo xam ne am nuun maîtrise boo leen defalee lu baax ba ñu gis ko nekkoon si ay tum tumuraanke ay jafe-jafe nga defal la ba ñu gis ko ñoom am na ñoo xam ne mënu ko téye il faut wax ko ma du man maay génn di ko wax moom moom moo ko wax te loolu am la parce que jamono yooyu damaa fekkoon ci damaa yóbboon ci biir taxi si taxi mu dégg may woo kenn di ko wax léegi da ngay jël galaaj yi dafa ko nii ak nii dafa ko nii ak nii mu déglu ma xam ne man mii maaraa ñaankat la parce que man mu am na lu may solo wala lu ma looyee bu ma looy maaraa la du xam parce que du ma wane ay béjjë nag du wane ay sama bagage moom secret laa koy def fu may liggéeyee xam naa fu may liggéeyee ku nekk koo xam ne war naa jëflante loolu foofu laa lay yóbbu wala du ma ko wane ñëpp di ko gis léegi bu muy bu mu nekk si biir oto bi mu woo ma moo ma balaa ngaa wàcce mu wàcce ma mu may ma paas bi ma ko lan moom a ma nga sin bi dama bëgg nga ñaana ma rek ma xoolal ko ay mbiram def ko ay affaire def ay lii mu fekk affaire am dafa dëggoon ko trop man def ko ba yàlla def tey mu nekk multimilliardaire tey mu dem di faral eh, di di tëral ay ñëpp kooku moom kooku moom ku mel noonu boo ko defaree ba mu gis kooku il faut mu teeral la ba si jumaa ji may defa ak yooyu yëpp jox na ma si teraanga bu nekk wax dëgg yàlla te loolu mbir yàlla moo koy def parce que moom it gëmu woon yàlla yàlla dina ko dindi sa ay ay ay ay parce que oto ba mu yoroon sax oto siirumaan la woon oto moomu ko woon la maa ngi koy def ba tey yàlla def na tey moom macha allah lépp loo xam ne ay camion la ak lu ne lu ne loo xam ne nit dina ko yor loo xam ne borom teraanga am na ko léegi jamono toll moom day day mooy faj gum gàcce wa dëgg yàlla te yàlla defal na ko loolu waaw. ba tey sànq yaa ngi wax ci projet yoo xam te ne yaa ngi si mooy ay tabax juma ay tabax ay tabax école ak yooyu est ce que mën nga see ñëw lan moo la lan moo dugal ci loolu. li ma si dugal mooy jaamu yàlla rek. parce que gis nga àdduna boo si nekkee bu la yàlla mayee àdduna pare da nga war a defal sa àlaaxira xëy na jumaa jooju école googu yooyu ngi si dee te gars yi am na koo xam ñoo xam ne ñu ngi si def am na guddi ñoo xam ne ñu ngi ñëw di jox teraanga bu nekk di ma si jox loolu jaamu yàlla xam nga yàlla mënoo koo sante dara lu dul di lu dul li nga xam moom la la may nga ko si woon ba xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo nekk si comme xale bi nga xam ne maa ko jëloon à charge yóbbu ko France fay si ay cinq millions quelque presque six millions Hmm? kooku maa ko jël arsaat yóbbu ko France faju ji ko parce que kenn joxuma si xaalis maa ko jël arsaat loolu defal yàlla la parce que xale bu ndaw la ba mu ko defal kan moo koy defal hmm? te bu ko te xale bi faju na alhamdulilah keneen keneen encore noonu la ñi nga xam ne dañu am ay ordonnance ak ak yooyu yëpp dama dama yor ay français par par bon laay fay ñi nga xam ne doo nekk si ay jafe-jafe ma xam ne leen ma yow da nga nekk si ay jafe ndimbal di la def. ba mel ni ki nga xam ne moom laa waxoon rek ki nga xam ne moo nekkoon euh, marok nekk boroom alal boo xam ne maasala am ko muy jëflantee ba yàlla def mucc yàlla def aajum faju ma defal ko li ma koy defal yàlla def aajam faju mu yónnee ay si gi paase rek ay ablo bu bëri bari xaalis bari ma def ko ablo filmer ko parce que pour mu woon ko mbokk yi sama kii na na jël téléphone bi fi topp ma ma jël ablo ko yi def ko séddale ko kër yi parce que pour mu gis ma yónni ko video pour mu gis parce que bëgguma mu yaakaar dama lekk xaas bi ak ñi nga xam ne ki nga xam ne bu fa nekkoon États-Unis ma mët comme problème bu mu amoon dem ba jabaram indi ko euh, euh, génn ko kër gi waaw parce que bu dem na ba mbiram yàqu amatul dara jabar yi xam nga américain yi moom boo yoree boo yoree yoratoo moom dañ lay wax sëy bi moom mënut a continuer da ngay bàyyi yàlla def boole ma ak kooku ma defal ko defal ko ba yàlla defu tey muy dem ba dem am teraangam jënd fa ay kër bañ gars yi di ko ba ñooñu di ko tooñ di ko wax africain terroriste di ko tooñ daal di ko wax loolu mm-hmm. ah yàlla def aajum faju ba ku jigéen ki mu toog ba ku jigéen ki toog di wax di wax ay xaritam est-ce que diw mu ngi may woo est-ce que diw diw mu ngi may laajte est-ce que diw téléphone am sama image ba léegi moo si nekk parce que gu jigéen ki demoon na ba wut avocat ba tas sëy bi ba kook mun dem ba ëpp ko doole ba jël lépp alal ji yëpp kooku muñ nag ba boole ma di fanaan si ay taxi di fanaan si ay affaire yàlla def boole ma ba yàlla def man ñaanal ko ba yàlla def mu am teraanga waaw. moom moom sax wax dëgg boole na ma kenn ko xam ne dafa amoon problème kayit yàlla def na moo ko ñaanal na ma naa ko ba amu kayit xam loolu lépp si mbir yàlla la moo tax seet du ñëpp ñoo ko mën. wax ma seet làmbatu yii de seet dëgg-dëgg koo xam ne man am na boo xam ne mun naa la laaj sa tur mun naa la bañ a laaj sa tur di dama la wax lépp parce que mbiri jinne la te jinne yi ma yor araamul bonul lu def lu baax la ñuy def duñ def lu araam parce que duma ko def taal bi seex la du def taal lu araam te gëm naa ne yàlla gëm naa ne du ma ma lekk loo xam ne lu araam la ba gisee may wax damay ñaar nit ki ba mu gis mu doog a joxe am na foo xam ne fa ma ko teg parce que bëgguma kenn taxaw di Ablaye nax na ma wala lekk na sama xaalis war wax na ma loo xam ne amul loolu laay bañ moo tax. Mhm. sëñ bi ba tey euh, ci projet yi est-ce que mën nañoo xool euh, début yi nga xamante ne moom nga tàmbalee sa projet bi. waaw projet yi moom wax dëgg yàlla yàlla def na mu ngi nii. wax dëgg yàlla parce que boo xoolee lépp yaakaar naa war na ëpp euh, trois mille milliards yi moom yëpp yëpp yëpp moom dina ko mot boobu lépp pare nag pare lépp laa wax nag waaw parce que bu pare laa wax de lépp dina ko dina ko dina ko mot wante xam nga yàlla moom mooy mooy mooy mooy àggale moom ñu suñu yéene lañ am def waaw parce que xale laa wante lu baax moom bëgg naa ko parce que xam nga nit foo nekk rek war nga di def lu baax war nga di def lu baax parce que gëm naa ne boo defee lu baax yàlla jàppaleel sa li ngay def mu tax man li may def dafa am foo xam ne dama ko foo fu leer waaw parce que yàlla mooy maye mu ngi nii waaw yàlla mooy maye te gëm naa ni incha allah rabbi yàlla euh, dina àggale li lépp mm, mu ngi nii waaw waaw li école bi la école bi ngay tax waaw parce que boo xoolee lii mooy hôpital bi. ah lii mooy hôpital bi. Mhm. fii la nekk Thiès. waaw lépp fii la nekk moo tax xam nga àdduna boo si nekkee di def lu baax booy def lu baax rek muy lii mooy jumaa ji déedéet lii mooy beneen beneen euh, palaa yi xam nga xool ba xam ci naa gis jumaa ji lii yëpp si si la bokk. moo tax booy def boo defee rek ya yow tàmbalee rek yàlla mooy àggale. Mhm. xam nga ñun dañoo gëm yàlla. te gëm naa ni yàlla rek moo mënal nit ki dara wante nit mënulu boppam dara lu dul yàlla xëy na mën na koo jaale si ay loxo ba li nga xam ni euh, li muy mëbët mu sotti mm-hmm. parce que li may def nii bu ma sañoon sax président Macky Sall moo koy signé mm-hmm. moom moo koy signé wante parce que moom mooy sunu kilifa mooy sunu njiit te loolu da si am solo waaw loolu da si am solo trop trop trop te wax dëgg yàlla def ma ko pour mu wut ci moom xaalis parce que maa ngi sant yàlla bu baax lii moom xam naa xawal ma si état état bu si defee baax na bu si deful baax na te xam naa ni bu ko deful sax sama taalib bi nga xam ne dama lay ñaan ñuy gis ñu may jox ay oto yu bees am na boo xam ne oto bu bees bu tàkk lañu ma jox mu ngi fi te ñoo lépp gars yi ñoo ma koy jox di ma ko si teralee te loolu gom naa ni sax xol bu seddee booy def moom doo doo lii waa jumaa ji mu ngi nii waaw lii mooy jumaa ji lépp ay poto la ay lii la waaw poto la ay lii ab poto la lii moom xam naa lépp daal dina jur xaalis moom waaw moo tax euh, sëñ bi euh, li ñu cërale woon ci waxtu mi ngi jeex ñu bëggoon xam exactement lañ ngay tëjee waaye li may tëjee mooy ku nekk bu la yàlla dénk euh, réew na nga nekk roykaay mooy man mooy keneen réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko moom parce que xëy na yàlla def na am ñoo xam ne mun-mun yi demewu noonu ñi nga xam ne yàlla di teral ñiy def lu baax comme président Macky Sall mi nga xam ne moom mooy jiitu réew mi njaboot bi nga xam ne dafay nekk ñi nga xam ne am liggéey mu dimbal leen am mu wuute liggéey ñi nga xam ne dañoo nekk si mbënd bi mooy ndox mi mu dimbali leen jàppale leen ba loolu dañ ñi nga xam ne am na problème hôpital wala leneen mu jàppale leen réew mi daal li loo xam ne parce que gëm naa ne Macky Sall am na yéene pour defar man xam naa ko. wante moom mënu defal lépp il faut ministre yi nga xam ne ñoo nekk si wetam il faut ni ko si jàppale parce que xam am na ñu ma si xam ministre yu bëri xam naa leen ñu bari sama xarit leen damay jëmante ak ñoom dama waxtaan ak ñoom wante lépp lu ma leen wax mooy wax leen Macky Sall si boppam na defar réew mi li mu koy defaree mooy ñi nga xam ne dafa am problème fu am problème bu Macky Sall mënu mënu mënu nekk boo gisee mu wuti ay ministre te fu mënu def la boppam lépp moo tax wut ministre ministre bu nekk nag war nga fun la yónni wala wala fun la dënk nga dem toppatoo ko ba xam lii lan moo si war parce que askan bi ñi moom la nit ñi ñoo Macky Sall euh, Macky Sall ak président ak yooyu il faut ñu jàppale askan bi parce que man maa ngi man maa ngi sant la ba wax moom jàppale ma parce que man man moom kii fayeeku weer weer ku fayeeku weer ay local li sax ay climatiseur rek courant yeeg dund bi yooyu deux millions cinq weer moom laay fay weer sama courant sama lépp sama gardien yeeg sama euh, jànk yeeg yooyu yëpp boo ko boolee deux millions cinq cent la par au par au mois sama lépp kon man xoo xaar ma état te yàlla moom ma koy sutura chaque jour ma am ko maa ngi sant yàlla ba kon lu may wax mooy ñi nga xam ne am néew doole yi nga xam ni am na doole il faut Macky Sall jàppale leen dimbali leen mooy si lépp parce que ñoom ñoo ñoo yor réew mi léegi parce que ñu dañoo war a am royukaay royukaay mooy ëllëg Macky Sall war na def loo xam ne ëllëg biir bu fi jógee du am lenn lu ko wax lu dul liggéey na fi lu rafet moo tax may wax ministre bi fu la dénk foo xam ne war nga fa dem jar na nga taal sa oto dem ba gox boobu nga xool li ñuy dund nga jàppale neen dox loolu looy mooy àdduna parce que man gëmma ki nga xam ni dafa nekk si état wala nekk si lii moom boppam personnel donc moo ko ñor loolu gëmma loolu man du ma gëm ki nga xam day gën parce que nit ñi def nu Sénégal ñi def nu boo leen def lu baax nga xam ni yow mi dangay taxaw ëllëg boo bëggee réew mi nii jàppale la waaye boo leen def lu baax nga war leen ëllëg si biir ñoom dañ lay wàccee waaw Mm. ñu ngi lay lu baax a baax sëñ bi euh, sëñ bi euh, moom lañ fi ñëwoon tey seet si fi euh, fi nga xam ne moo di si Thiès fas yéene waxtaan ak moom ci lu bëri dégg ngeen ko noonu li mu wax ci li nga xam moom moo di projet yi ak li nga xamante ne bi moom moo di moom moo di ci wàllum ñaan xalaa ji lañ jox dig dajale beneen yoon rek fii rek lay xew Sunugal 24 point net ba beneen yoon incha allah.